وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن شيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السير mbokk yi borom subhaanahu wa taala dafay woote tey feetlu woote bi saa su ne di wax ni lim ñu dig te mooy dekki boo liggéey ak tasaaroo ba fay xew ak dajalal gi ñu leen di dajal ak fay gi ñu leen war a fay seen i jëf moo xam lu baax la wala bu sawaan lu am la de borom sax wa taala teg ci aayaat yooyu lu nu moytuloo ñaari fitna yii nga xam ne dox diggante nit ki ak mën a waajal ah, dëgg rendez-vous boobee nga xam ne dëgg la dig boobee nga xam ne dig bu dëgg la te mooy fitna yi àdduna ak fitna yi seytaan bari na lool lu ñuy moytuloo ci téere bu tàdd bii di alxuraan karim ci dundu àdduna gi mu bari lool lu mu koy ŋaañee ci aayaat ak di ñu leeral gaawaay bi àddina gaaw gaaw ak dañ koo xam ne dana ko ah, dañ ko seet ay waay yéen jaam yàlla yi lu tax àdduna gën a leen dana fa yàlla ma lu tax seen alal ak seen i njaboot ak di leen soxlaa wala ngeen topp yàlla moo ne yow doomu aadama bi day loo dund dajale dajale faw da ngay dem faw rek li ne say loxo dana dem ba jëf tàkk doo dee sa dara xanaa du du sa jëf rek bi ngay ñëw ci àdduna yoroo woon dara loxo kese nga bindaal booy dem du yóbbu dara boroom solo taala moo waxoon ca téere ba ni wala xat ji'tumuunaa furaadaa kamaa xalaqnaakum awwala marra wa taraktum maa xawalnaakum waraa zuhuurikum maa leen bind dafa waxoon ne da ngeen ñëw si man da ngeen dellu si ci man benn benn te du ngeen indaa si dara da ngeen di rafet da ngeen dama leen binde woon rek noonu ngeen di desiwaat lépp lu ngeen amoon ngeen bàyyi ko. yow doomu aadama yaa ngi jaar ci àdduna ngir wala jëm alaaxira may nañ la posé ngir nga mën a wut ab yóbbal àdduna wut jaaru kaa wutukaay ngir jëm ci kër gi nga xam ne mooy alaaxira yaa ngi mel ne ku jëm ci dëkk jaar ci marché rek ngir fa ay boo xam dana tax mu mën a fu mu jëm amoo ci àdduna lu dul rek xanaa li nga yóbbaloo jëm alaaxira kese lu dul loola da ko fi bàyyi ay jaami yàlla yi àdduna jii day li fi lew lépp isaab jubaar rek la indi li fi araab yëpp bëggoon rek la indi te lépp itam ci ràpp rek ci lay mujj kenn itam du jàng jëm ci àdduna daf ko muy saytu jëm du lu ko xam ne xëy na eh, ku ñàkk ku ñàkk xam rek ku ñàkk xam rek wala ku ñàkk jub rek ndax moom demal maa ngi ñëw rek la ñaata nit ñaata soppe ñoo tàgg soni soppe ñaata borom kër ñoo tàggu seen soxla woon leen gannaaw wala ñaata soxla wala ñu njaboot ñu ñoo xam ne ay xarit daaw ñu tàggoo ñëwoon gannaaw seen i xarit dem wala safaaba yi itam ñu dem jëm ci fay suñu borom ak ciyaabaam wala ñu jëm ci safaan mu mel ne kon dama maa ngi ñëw toppante rek nit ñi day benn benn la dem naam naam léeg-léeg sax dem mbooloo yi dem yaay yi dem buur yi di dem jaam di dem ñi am di dem ñi ñàkk di dem ñi gëm yàlla di dem ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla dem ñi baax dem ñi bon dem mu mel ne ñëpp kon dañuy dem rek jëm alaaxira ñu war leen denc la ci seen bàmmeel njur ñu war a xaar nag dekki war a xaar tasaaroo ba war a xaar bis ba ñuy war bufte ba bis buñ ko walee kenn ku ne fam la fekk sa bàmmeel nga ne fojjat sa bàmmeel daal xar nga daal génn malaaka yi di leen tasaare di leen dajale ngir mën a yóbbu ci fan ñëpp fa nit ñi dajaloo su boobaa moom la alxuraan wax rek naan yawma yaxrujuuna min al ajdaasi siraan kaannahum ilaa naasin yusrauna su boobaa bu ñu génnee gaaw lool mel ni ba ñu nekkee ci àdduna si daan def ci seen yàlla yaa jaamkat xërëm yi la yow dem ci ñooñu liñ daan nekk ci ñuy dem àdduna bi dem ci seen la ñuy mel dañuy gaaw lool waaye nag bi yoon moom dañaa dañ jàqara lool ànd ak tiitaanga lool boo xoolee seen kanam yi njàqare la torote daan ko fees dal ñu jëm nag ci xam ne moom lañ leen digoon ay waay yéen jaam yàlla yi borom sono taalaa day ngaañi na lool li nga xam ne daa mel ne dunduk adduna mu ne gënal dunduk ngi naan ulaayka allazina staru lxayaata dunia bil axira fala yuxafaf mel na ñoom ñoom daa mel ne dund adduna leen gënal waaye duñ leen woyefal mukk seen dugal mën te kenn du leen borom sa borom bi subhanahu wa taala di waxaat ci yeneen aaya ci ñi nga xam ne daa mel ne dund ko àdduna moo leen la kallaa bal tuhibbuuna al mel ni li nga xam ne moom ngeen njëkk a gis daal li gën a gaaw rek daa mel ni moo leen gën a tudd àdduna ndax ma ne tey daal moo leen gënal ëllëg ngeen bàyyi nag seen ëllëg fële waxaat ci ne yeneen i aaya inna haa'ulaa'i yuhibbuuna al-aajilata wa yasluuna waraa'ahum yawman thaqiila dafa mel ni nii daal adduna moo leen gënal ña nga bàyyi nag bis ca kanam boo xam ne bis bu diis kan la bis booba de bis bu diis kan la borom booba de fa ama man taxe wa aasara alxayaata dunia fay na deximi ne da ngaa bewoon adduna gënal demee safaan ba rek moo nekk si kanam gënal adduna ci àllaaxira lu yomb wane gis ci nit yi jëfe nit ñi boo koy gis ndax saabu lu lu jëm ci àdduna lu jëm ci àdduna lu ne nit ñi mën na caayaloo coono bu bare bare bare bare waaye lu jëm ci yàlla jarul yoon dara ñaari waxtu yoo xam ne da koy taxaw jaamu ko yàlla wala waxuma sax ñaari ay minit sax mu mënoo koo dégg waxtu wu ne ña ngay di dem ci barab yi ñuy caaxaane tey fay seen xaalis bari bis bu ne nodd noddkat bi woote hayya ala salaa hayya ala falaa ñëw leen ci julli ji ñëw leen ci tefe gi waaye ñu néew néew néew ñëpp toog man kër gi ñëwal fi kenn kër gën a ak bés dal ñëpp toog moo ne bu ñu wootoon jëm ci leneen loo xam ne koomu àdduna la wala yeneen day fees dal boo sàgganee léeg-léeg sax dañ lay laaj xaalis kon loolu day wane ne nit ñi daal àdduna leen gën a àllaaxira saa bu ñu wootee mbirum àdduna jarul la benn mbirum àllaaxira jarul la benn coono ci àdduna moom mën nga caa dégg ci la dana feeñ ci seen àdduna moom dara nanguwuñ ma manqué si seen àllaaxira moom maanaam mën nañ caa yaakaar maanaam jarul la kenn ci nit ñi bu soxnaa wala kenn ku njaboot nga woo ko mu yéexa wuyu wala nga def loo ko dara mu bañ wala dara nga daal di gis sa bopp moo ne boo ko gisoon mu waxtu jot mu bañ sa xel doo yëg sax ni maanaam julli bi wala nga gis mu def loo xam ne wóor na lii teel suñu borom da ko tere du la yëngal baa ne wóor na lii suñu borom da ko bu jëmee sa mbirum bopp nag sa mbirum àdduna bopp nga daal di sa bopp kon day wane nañ àdduna daal xam moom moo gën a suñu àlaxira ngi leen di baal waxtaan daal yeneen yàlla boole jëkk ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل سوء مغفرة من كل بر والفرس من جنة ونجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا سقيته ولا دينا إلا خديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا في صلاة إلى خيرتها يا أرحم الراحمين وتسبنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن ختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقد به حاجه كل مسلم